moom moo di euh, kàdduk Moustapha Sarré di porte-parole gouvernement bu euh, bu njitu rewmi euh, premier ministre mom dal dinay àddu nag ci lu jom ci rapport cour des comptes contrôle de l'État moudi IGE moudi IGF wala sax moudi di rapport nak ba ci cour des comptes rassurez-vous il y aura donc des poursuites loolu la daal di ci 24 heures yéenekaay nous croyons fermement que notre justice peut être indépendante et et, elle le sera. Aujourd'hui, c'est à la justice de voir quelle suite donner donc à ces rapports qui sont sortis donc euh, par les institutions donc de la République. Si jamais le procureur juge nécessaire de poursuivre des personnes pour faute grave, il le fera. Il n'y aura aucune entrave dans le fonctionnement donc de la justice. Si, si celle-ci euh, considère qu'il y, a donc, qu'il y aura donc des poursuites à l'endroit donc de certaines personnes, qui ont eu donc des écarts dans la gestion des dernières publiques Lorsque Moussafa Moustapha dit euh, porte-parole euh, euh, gouvernement du Sénégal Daldi di 24 heures yéen kaay bu ñu ci quotidien le chef de l'opposition le candidat de l'ex le candidat de la coalition euh, Benno Amoudouba, l'ex-premier ministre le candidat de Macky Sall en 2024 l'élection présidentielle y passé Amoudouba, le véritable candidat de Macky Sall en 2024. ci réew quotidien faut pas répondre à la provocation. parce que c'est pas le cas. mais bu sax man

mais Amadou Ba dem campagne bi tijjeegul Amadou Ba biñ ko defé candidat dem na Tivaouane dem na seeti ah, sëriñ bi. Ah, ah ouais waay waay c'est vrai. fa fek fekk Abdou Mbow effectivement nuyoonte bobu moy moment bi Abdou Mbow doon wax ni soutenir ko. alors question autour de. waaw ah, foofu la ñu euh, dajee nuyoonte benn nuyoo jubóo yooyu man déedéet déedéet. mu ngi noonu les images les faits. bien je me rappelle très bien question moy biñ ñu loxo ñom ñaar question autour de l'avenir politique de Amadou Ba lolou la fessel yene kay yu fessel dal di samp ap la ci ëllëgu euh, politique euh, qui qui dit Amadou Ba leader de l'opposition candidat au coalition euh, Benno Bokk Yaakaar ci élection yi nga xamné ne lañu kenn. ñu alors tribune ci lim ma doyen Madaba fësal la ñëw sank mu ñëw ci la souffrance donc des Sénégalais se poursuit les boulangers menacent d'augmenter donc le prix du pain ñu ngi menacer nak ne mburu mi mom dañ ko yokk Xamna né suñu mbokk séeréer yi moom lii moom fas ko nangu ben ah si préparatoire bi nag ay séeréer kese ci nekk. Mhm. waaw benn buur a fi nekk muy nii ne cundum mooy def revue de te ponk bi ci wàllu yokkute mburu bi euh, euh, bi gis nga honorable bi mu xëy loolu la njëkk a wax. ma ni ñun am loolu la njëkk a wax léegi ay jënd ay. mburu yooyu à cause donc la hausse du prix de woyof saako mburu yu fanaan yooyu jeex na ah. ci tund séeréer yi. Fagadaga Fagadaga Fagadaga c'est fini. <laughs> alors léegi dañuy defar booy booy séeréer ut leen projet boulangerie waaw. turbine yéenekaay moom moo ci dal di ñëw wàññi macaroni bi tabax defar boulangerie. waaw turbine yéenekaay moo ci daal di ñëw fësal ne yokkute bi ñu nemmeeku ci euh, prix bi jëm ci wàllu courant bi ci woyofal yi tax na daal boulangerie yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi artu ne bu ñu moytuwul dinañu yokk li nga xam ne moo di njëgu mburu mi yéenekaay bi turbine moo ci daal di ñëw ca commune. bu Médina Bamba Fall moom di moo di jaraafu gox ba xam nga nag am na rapport bu. Cour des eh, comptes mais nag na génn ci mbedd mi bu fekkee yokk nañ courant bi. il faut savoir rester cohérent. d'accord daf ko jaraloon mu dem ci gris yu palais yi jël ay risques. yokku nañ ñu ngi xaar lépp ba mu des ay courant yu yokku nag. d'accord alors yokku na Guy Guy tu as du pain sur la planche. tu seras jugé sur ces histoires là. d'accord alors ñu continuer ci. revue de yokku. rapport bu Cour des comptes. Ah. ci euh, gestion wu Bamba Fall di jaraaf bu une délégation spéciale donc réclamée à la mairie de Medina. xam nga Bamba Fall y a un rapport bu ñu ne.

induit les bi donc tribune wa ci dal ci daal di ñëw moo tax ñenn ci mairie bi euh, délégation spéciale ci euh, mairie bu euh, Medina, Bamba Fall ko jité modi bu observateur bu groupe Futur Média ñëw na ci li nga xamné paiement de la dette aux producteurs semenciers donc l'observateur est est est la seule vérité le faux démenti donc du ministre et les nouvelles révélations sur la dette l'historique donc de la dette, le point sur l'état donc des paiements et la méprise donc de docteur Mabouba Diagne mi nga euh, alors créance donc du euh, secteur privé national la dette de plus de 300 milliards de francs CFA qui étouffe les BTP les entreprises obligées donc de se séparer d'une partie du personnel les heures supplémentaires donc supprimées et la pression donc des banques Il y bi observateur nous moudi dit confidence de femmes sur la première nuit de noces de leur époux avec donc la co-épouse. les crises de folie les tentatives de séquestration euh, la violence physique le maraboutage observateur le quotidien Yenekaï, nous sommes na plan d'urbanisme de détail le diable est dans le détail Yenekaï, bi le quotidien mokodal ko di fësal le na itam euh, président Bassirou Diomaye Faye approche donc tout décret donc accordant les salaires donc à d'anciens ministres le quotidien Yenekaï. Demchi, le témoin quotidien Yenekaï baisse des prix des denrées le président Bassirou Diomaye peut-il réussir donc son pari dans le samp ab les réponses de Moumar Ndaou, président de l'ASCOSEN du du président Idrissa Djendi donc de l'UCAD et de Aladien, de l'Inakwa Yeesal ci le Témoin quotidien Yenekaï. Le ci Témoin quotidien yennekai. plan donc de baisse des prix des denrées de fixer donc le 15 mai honorable test majeur pour Bassirou Diomaye Faye dans Wolf quotidien yennekai plan de baisse des prix donc de denrées fixé donc au 15 mai. Test majeur pour euh, Bassirou Diomaye Diakhar Critique contre le nouveau régime. Pourquoi l'opposition est fond Régime, euh, Moussa de alors